mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te nag ñoo ngi fii caaro yi maa ngi toog ak ki nga xamante mooy Colifay 2 Colifay 2 nag su mu nee Colifay 2 bu caaro waaye Colifay bi na jàkkaarloog Ada xale bi nga xamante ni dafa të xale bi nga xamante ni dafa ës xale bi nga xamante ni nii fi mu toon xelam daa dal ci xale bi nga xamante ni nii fi mu toon a jëflanteel xool ni mooy xoole <laughs> bi nga xamante ni neexut a jëflanteel euh, li mu wax lépp nag keroog dañoo commencé woon mais keroog dañ ko dagg mais tey dinañ ko àggali ma bàyyil ko yu fay mu nuyoo ndax fi mu toll ñàngal gi muy ñàngal bëgg booy bi reer ko yooyu yëpp dinañ ci wax. xam naa ne daa booy bëgg dafa bëgg booy bi reer ko waaye xam naa ne moom euh, Ada Fass gorom Ndakaaru la regal ko ci moom ku li fay nuyu naa la. Ousseyn waaw maa lay fay ginnaaw ma la sant yàlla julli seen dugg suma ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu surtout Thiaroye gi ma dëkk fii laa juddoo fii laa yoroo fii laa defee lépp Thiaroye amul lu maa ngi nuyu di leen sant di leen gërëm woo si làmb ji maa ngi woo fukki penc ñaar yëpp rawatina waa Caaray di woo waa Lamsaar Jàmmagan Sikaab Jeg Saaw Fass Mbaaw Kër Masaar Petit Mbaaw Grand Mbaaw Zac Mbaaw gi ma dëkk waa Tëngéej maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn waa Gambi waa Casamance maa ngi woo ñëpp daal ci lamb yi bàyyi ma kenn waaw. Euh, risque bi nga jël suma ma nee risque bi nga jël maanaam da nga teel a maye chance xale bu nekk ci yoon nga war a say morom nga nangoo jël ko. risque boobu nga jël foo ko teg. waaw kan laa may chance yow. non ko sens mais noonu lañ ko mën a tuddee ndax defe naa ne mën nga bëgg say moom mais boo wàccee bëgg Ada Fass bu la fas Ada nooy def. non du ma daan nag du ma daan mais ñàkk ma bëree morom ma jël ko nag parce que ñu war a bëree man nangu ñoo bëree man waaw ñu war a bëree man nangu ñoo bëree man. mais est ce xool feneen fu gënoon nooy Ada Fass. ah man làmb ji lu nooy ma ma ba ma bëree bi ma bi ma sama 21 combat musuma bëri làmb ji nooy musuma bëri mbër ba doon ba ci làmb ji combat bi na hmm, ko ci favori. man de dafa ma si bopp favori te ñi may àndal tamit dafa ñu mën yàlla. lan moo tax loolu. ah laamu toll foofu rek laamu ji toll foofu laamu ji ak ni ngay rek waaw ku ma def favori te man def ma si bopp favori te ñi may àndal tamit dafa ñu mën favori waaw. Euh, lan moo tax booy ñëw booy ñëw à chaque fois ci ay signature affaire yu demee noonu ngay ñaang ñaangulu takk ay masque bañ booy bi xool da bañ booy bi ñemel non non. bañ booy bi ñëwee booy mënu maa ragal man doomu aadama laa rek comme moom ni ko yàlla saak rek su ma ragalee ñoo xam moom de nit góor du ragal góor te góor du yërëm góor Arafa su ma ragalee mu yow ñu muy àndal ñu bàyyi ko lu muy ragal ci man. du loolu xam nga Arafa. Arafa waaw xam naa ko. nan nga ko ci làmb ji rek ni mu nekkee mbër laa xamee de. bi combat bi taxaw léegi yaa ngi yaa ngi yaa ngi koy gëstu. wax dëgg fa yàlla nag gëstu moo ko nag waaw gëstu moo ko de. xam nga li mu mënee. li mu am na mbër yu ko mënee fii. kon yaa ngi koy gëstu. li mu mënee am na mbër yu ko mënee fii. moo loolu moo gëstu. bépp mbër lépp lu mbër di bëri rek am na am na mbër bu koy bëri fii nii. boo yee nga gis fii nii ko laa dañ koy te ñoom rek laay kontaagal. combat bi daal nan nga ciy gën ëpp looy liggéey. combat li ma daan leen lu ciy wàññi su ma ko yokkul ma ko wàññi. contact wala xeex wala bëre. lépp maa ngi contact maa ngi box maa ngi physique maa ngi liggéey cardio maa ngi liggéey lépp. keroog dama koo dékk mi ko mu ne ma Coly Faye dinaa ko duma dinaa ko duma dumay métti jaabanteloo ko ardo te loxoom duma laal. Coly Faye duma ko yomb na duma Coly Faye moom ci ay micro moom yomb na trop. ci digg géew bi la wax dina la duma dina la duma jaabante loolu ardo ba noppi daan la. waaw loolu yëpp mën du ko laal. naa nekk. loolu yëpp mën na nekk mais la nga bàyyi ci rek na ma duma man na ma qualifié qualifié est-ce que jël combat ba noppi euh, xaw a wóolu sa parce que bu ñu gisee nangu loo wax nangu loo nangu nangu loo wax ci combat bi benn yoon lan moo lool. lamb yi lamb wax lamb yi lamb wax Ousseyn man lamb non xam yi du lamb wax sama côté man man li war maa ngi si. mais xam nga fa ñëwee wax moo leen fa andi mais du ay ñàngal wala ay. xam nga dëgg fa yàlla ki may waxal du du Ada Fass moom. ki may signature moom di wax. lii nga wax nii moom lool la wax neena na saa boo waxee ba lim ba tudd ay sëtaak ay ñeneen ñeen day kontaan day ref parce que xam na ne ñooñu ñoo ci des mais du yow. <laughs> na bàyyi ba jógee fii Alpha fi laal na frein instant yi dafa laal frein. nee na comme daa tiré frein amee. bu yàlla tegu ko. billaahi. nee na comme bi mu dalee bëre ba léegi combat bi muy gën a yomb ci ay combat. dëgg la li ma la taxaw na waat Serigne Saliou nee na damay daan ah? taxaw na waa Serigne Sall ne damay daan arbitre sifflé man moom Coly du ma ko ci ay micro yomb na mais li ma ko waxoon laa koy mu takk ay jaaj Coly Faye mi ngay fekk fi mu toog Coly Faye mu takk ay jaaj du benn de Coly lay doon billaahi Coly Faye mu takk jaaju ba sangoo sutee ko soow romb la loo doon doon góor barke alxuraan loo ñime ñime dina am lu jóge si yow nee na Coly Faye combat yi ñuy wax mooy sa combat dem wala combat yi mooy sa combat capital Coly boo ñëwee guus ngay jaar waaw loolu yàlla ko bëggee noonu nit da ngay nangu ndogal yàlla suñu borom am naa ko trois fois ñàkk mais bii nekkul lu may ñàkk bii man maa ko jël sama bopp man. mbaa bii du nekk quatrième fois. li ko wax bii man maa ko jël sama bopp lamb ji man maa ko jël sama bopp sama lamb la du lamb kenn sama lamb la man. xam nga fi mu la mën a yóbbu. bu baax. soo daanoo fi mu la mën a dugal xam nga ko. bu baax moo tax nag ma lambee nii xam naa fi ma mën a yóbbu su ma ko gañee su ma ko ñàkkee xam naa fi ma mën a yóbbu te du ma ko ñàkk dama koy gañe incha allah rabi si kàttanu yàlla. lan ngay wax Ada Fass. Ada Fass ma koy wax mooy di ko ñaanal kóor jàmm di ko baal ak te di ko baal di ko wax ne maa ngi koy ñaanal kóor jàmm ak salaam maa baal ak moo ñi mi àndal ñëpp di leen baal ak di ko ñaanal kóor jàmm di ko wax jour yi na ñëw taxaw dëggal boppam. lan lan lan ngay wax Petit sama moo dëgg la. Petit moo nekk benn affaire keroog nag keroog nag ko waa man. te nii da ngay da ngay keroog na ma benn question nee pour ngeen ma yow yaa am posé question boobu sax su ma wàllu jaay combat jaay combat ma ne ko promoteur na jaay laamu ji. waaw man maa nekk nit boo xam ne man man man mënuma communiquer bu gudd. Hmm. su ma communiquer ko bu gudd damay juum. yaa ngi dégg wax boobu maa nga ciy jégalu quoi di ko wax ne ko laamam dinaa ko jaay ba xam ne jaay naa ko. wax bi ma ko waxee bi ma ñëwee sax sama rakk yi ma bokkal ba Cheikh dañ dal sama kaw. te man bi koy wax sax man amaana Cheikh xamul tax ma wax ko woon dama juum quoi. boobu lépp ci cadre njàngal bi la waaw lépp non non. waaw si si. armée armée bi rek. mais dama ko wax pare ma koy wax ni ko maa ngi jégalu ji dinaa ma xam ne jaay naa ko la doon arène nationale. lu raw déggoo lu raw si ta Papa Sow ni si defoon stade bi. dinañ ko mm. ji. non est-ce di ngeen xeex laa. déggoo li la wax ji aussi nañ ñi gaay seetlu lépp mm. lii làmb ji du làmb ay làmbandu yu de. billaay walaay talaay mooy daa waacaare dama leen wax mooy waacaare ñoom jaru ma leen jaru ma leen wax tax ñu ngi waajal seen mobilisation làmb ji sama làmb la mais làmb waacaare la ji sama làmb la mais waa làmb waacaare la mais waa nañ teel a ñëw esat sangu ba seet ma boo yemee àndal benn booy bu ci nekk di nga def sa bopp pendant trente cinq mille wala vingt cinq mille te digg esat ñëwagul te digg esat ñëwagul rek t-shirt bi t-shirt sol waa Ndakaar nga ma la man sa boo yi may àndal t-shirt bi ñuy sol kenn ku ne t-shirt bi ngay sol ak ensemble ak dàll yi dañ ci fere vingt cinq mille wala trente cinq mille oto bu ndaw bi nga luyee ñëwagul gasoil ñëwagul tigi stade ñëwagul man supporter yi ma ànd ay noowu lan loolu kenn waxatu ko Ousseyn kontaan naa ci bëgg ci yow laa mu ji naa ko ba mu neex ah. bëri daan incha allah rabbi promoteur dina kontaan ñëpp dinañ kontaan incha allah nga dellu si waat fa nga nekkoon. mais tamit damay lancer benn appel si yéen. Wassare Lamb waaw 3SA ak sama jigéen fum ko la ne. Louva Louva TV. Major TV Idi Major TV. léegi jël bi ak kan. jeex na ak ak euh, Géejawaay Géejawaay info. ba dëgg fa yàlla Ousseyn aw seen fay yéen ñooñu ko waaw. ndax ku si nekk dama la woo rek nga bàyyi lépp li nga jàppoon te ñëw yombul. boo leen bëggee dégg dégg yéen mën a yéen yéen ñi fi nekk nii amatul sama intérêt sama diggante ak yéen amul alo ko lifere ma la bëgg a defal émission de ku may soxla émission barki alxuraan karim ak lu mu mënti doon ñëwal gaare ba sama buntu gaale woo ma ma génnal damay génn farfas loxati damay génn jàppaleen yéen yéen a ma moom ndax yombul quoi yéen ak seen morom laa woo mais yéen laa fi gis ci yow bu ngi sant ñëpp bi gërëm yow kontaan